mooy xar kanam bu yees bi jiite comité national de gestion de la lutte sénégalaise arbitre bi di Malick Ngom tabb nañ ko def ko président seen CNG mu wutu fi Bira Sène mi mandaam dar képp jëwrin bi gàlloo lépp jëm ci wàllu tàggat yaram di Khady Diène Gaye daanaka daje woon nag ak ñi sekk làmb jile ci alxemes gi ñu weesu ngir waxtaan ak ñoom sàkku ci ñoom ñu jox ko rek ay tur ngir mu tànn ginnaaw si kilifa gi li rek def na tànnee fa ma bokkoon na ci sax kilifa yu bëri yoo xam ne sampoon nañu seen ak ndënd mbay ya ak Mohamed Ndaw ñu gën ko xam ci Tyson ñoom ñëpp ci lañu bokkoon na kuréel gi nga xam ne moom moo ëmb mbër yi bëre Ibrahima John di Gris doo daal di ko jiite ñoom ñi sax Malick Ngom la ñu doon doole la jamono ji rek ñu daal di ko tabb liggéey ba mu war a njëkk a def bokk na ci rek suqali secteur boo xam ne coow la ko lëmbe bëri na malik Malick Ngom war a tam yóbbu làmb ji jile mu jóge ci comité dem ca fédération waaye sax sas bi gën a rëy jamono ji moom mooy rek organiser waat bi lekk secteur rawatina def rek lu gën li nga xam ne Bira Sène moom la def moom mi nga xam ne soppi na lu bari ci làmb ji président bu yees bile daanaka rek mandaam benn at kott la nar a nekk waaye tàpp nañ ca rek ay mbëbët yoo xam ne war na ko matale bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ wi gàlloo lépp lu jëm ci wàllu tàggat yaram ci noona la ñu ko fas yéene rek defal ab xayma ba xool ndax dañu koy tegaat wala dañu koy dàq loole Khady Diène Gaye la daal di woon a xamle